demoon ñun ca biti ñooña faaw kon dañuy ñuy toppi dem rooti ca biti su ko defee kon lépp lu nga xam ne ndox la mu ñuy liggéey ci biir Touba duggaat ci biir Touba waaye kenn du ko rootiwaat biir Touba di ko jaay wala nga koy rootiwaat biir Touba di ko sotti biir Touba kon loolu ak yokkute rek la mënoon a jóg loolu nag ñi ci jéglu kilifa yi bu baax ndax ñun defar rek moo ñu tax a jóg mosuñu am benn yoon menn xel mu du defar loola it ab xalaat la bu xam ne jógewutoon ci kenn nit ay mbooloo ñoo ko tëgg xalaat ko bu juboo ci war koo doxal kon loola man en tant que responsable ordinateur comité d'organisation ah euh, dama ciy jégalu ci lifa yi ndax nit ki nga xam ne mën nga koo rootloo mu dem rootal la su la xañee ndox euh, rek ñu ngi leen di xamal dañ koo tëy waaye bu sañoon du demee noonu loola it la ko dindi mooy baat baat moo nu liggéeyloo baat moo ko dindi loola noonu rek la demee li ci des muy euh, problème mu inondation yi fi am loolu it problème mu assainissement gis ngeen solution yi nga xam ne mooy moom lañ ci jël bi màggal gi daataan am sëñ bi taxaw ci Touba ci kanam taxaw ci état bi taxaw ci li ci man def nañ ko mais loolu ndoxu taw la ndoxu taw moom yàlla waxul kenn koy wàcc li ci am kay mooy ñuy ñaan autorité yi ñu xam ne yàgg nañ ko wax ne nawet màggal gi ci nawet la jëm waaye léegi kenn nattat li tune ne màggal gi ci nawet la jëm lii fi am ren yàlla bu ñu dimbalee ba ñu fekk ko mu bañ a am ko bañ a amaat loolu nag man koo waajal balaa màggal gi defe naa moo ci solution ah lu mel ne yoon yi ba tey am na ay raq-raq yoon yu bari fii gis yéen ko gisandoo xam ngeen ni euh, bari na ay projet yoon yu toj na bari na ay ay pax ay ay ay ay ay égout yoo xam ne muti kubéer bari na bari na ay ay ay problème yooyu yëpp autorités yi gis nañ ko xam nañ ko jàpp nañ ne li ci waa Touba mën a dund lu dul événement fekku ci événement parce que bu dul événement sax danger la ci population waaye nag bu tolle màggal Touba loolu bu amee problème lay jur ci gàttal daal man ñaari point yooyu laa gisoon ne barees na cee mën a kaat a addu ngir leeral ci askan bi ndax askan bi dañu war a xam am na loo xam ne ku bëgg xam war nga mën a am foo ko mën a xamee moo tax wax ji jóg ndax euh, sëriñ bi la ñuy liggéey waaye sëriñ bi askan wi tax muy liggéey kon loolu noonu rek deme demee ñi ngi ñépp ñëpp di balu ñëpp ak euh, di ñaan suñ borom noonu suñu liggéey dañ fekk waat ko ay yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah